parle d'amnistie les faits qui xew yi xew depuis 2021 ba ci loolu lañ nar a jëm moom dafa dafa nar a garaaw. waaw xam nga loolu du dialogue ce qu'on nous prépare c'est un nouveau deal entre acteurs dañu mhm. sonn ci yooyu. ça ne passe plus ça ne li ñu koy laaj mooy na delloo askan bi li nga xam ne ni ñoom ñoo ko moom. Mhm. moom amul ci benn wàll. mooy le droit de vote le jour du scrutin loolu la. mais ces histoires-là entre les acteurs politiques ouais. qui s'arrangent quand il le faut gérer leurs propres intérêts mhm. pour se relayer au pouvoir et que nous ñu vivre encore tous les mêmes problèmes même, à, à, même après même mhm. après des alternances mmh. non il faut que ça s'arrête définitivement dans ce ah, pays